képp ku fi nekk di liggéey liggéey bu rafet di ko teg ci yoon ngay sama papa wala ngay sama mag amaana sax ngay sama morom parce que idole mooy kuy def lu rafet kuy def lu rafet nga koy gis parce que man am na ñoo xam ne man maay seen idole képp kuy def lu rafet nekk ci lu rafet nekk ci lu baax yow idole nga référence la man ku ma gis ngay def ci lu rafet wala ngay def lu baax même euh, même bu dul lépp intéressé moo ci yow dinaa xool li baax ci yow ak li ci yow ma xam ne li fu ma ko jëlee ci yow ma jël ko ci yow. d'accord ñu mm-hmm. grand théâtre bi a xaw a tuuti parce que nit maa euh, événement la te tamit euh, suñu première expérience la ci événement bu mag. nelawuñ ci ci benn côté lépp luñ ci war a def rek def nañ ko ci incha allah bu bu bu ñu eggee ba ci bis bi di Sénégalais dinañ xam ni bis bi cofuñu ko dañ koo téye bu soobee yàlla. ñaata titre la ñuy xaar six sept non sept titre lan man may woowee vingt quatre titre. vingt quatre am répertoire rek. Hmm. man avant ma am album. dégg ma ma am album. boîte de nuit yi nekk ci Ndakaaru yëpp la joué te bii si fermé laa ko def dugal si YouTube nga seetaan samay sama commencement sama début soirée deux heures laay yëg sur scène cinq heures laay waaj trois heures de spectacle laay way dinaa way plus de quatorze wala quinze morceaux te lépp samay morceaux la li ma war a way ak li nekk sama dënd sénégalais dégg buñ ko ba la gën nag incha allah d'accord après grand théâtre euh, ñu ngi laajee incha allah ñu ngi ciy xaar ba am réussite bi après tal ba est-ce que bu njëkk bi nga gis mu def benn stand-by puisque def na benn bës quelque temps liggéey bi day continuer wala. stand-by ñun avant ñoom album sax stand-by ñu avant ñoo dem grand théâtre parce que man musique laa am man jànguma damaa bàyyi sama jàng liggéeyuma defuma dara musique mooy sama liggéey mooy sama métier damay nelaw yeewu dem studio liggéey répété su ma amee soirée guddi gi ma dem jouer ko ñëw tëdd nelaw man musique mooy sama métier su ma bàyyi musique xanaa du ma dund du ma mën a bàyyi. léegi ko bëgg da lay jaar ba am ko bu bés baa la jox. heure exact ñu ñëw heure ban heure la a yéeg suuf seen parce que dañu gis sénégalais yi kuy tëj grand théâtre da ngay toog ba benn heure bi nga ñëw ko ba temps bi la may nga way bi nga dul way ban heure bi nag eh, ticket yi c'est fixé à dix mille francs eh, entrée dix mille standard VIP vingt plus CD VIP prestige vingt cinq mille Euh, képp ku bëgg liggéey bi nga ko amee ci station Bécaye ak Grosse Dorée yi wala nga jël ci numéro yi euh, ma lay jox ni nga xam ne boo leen woowee fekk foo mën a nekk dinañ la ko livrer gratuitement muy 77 359 99 58 77 359 99 58 wala 77 498 53 00 ñaari numéro yëpp boo ci woo dinañ la livrer sa billet. wala nga ci station Malika yi wala ci biir fleur yi ñu jaay la sa waaw pour pour pour pour heure bi nag. bëgg a teel waaw loolu xam nga eh, le vingt neuf. c'est très ci moo de ci mois de février. quatre ans ba quatre ans lay ñëw. loolu dañ ci def code ba le vingt neuf passé ñu doog ko leeral. vingt heures base la. incha allah. dañu bàyyi est-ce que yaa ngi naan vingt heures vingt mais vingt heures vingt exactement est-ce que dina la fekk sur scène. dégg nga de. dama ne la vingt heures vingt boobu. du zaar baatin la. zaar baatin la. ñaari deux la ak ñaari zéro. vingt heures vingt. ku mu fekkul grand théâtre balaa yërëm. yaa gardien yi ataaya ci biir yéen a koy yéen a koy nga xam ne moom ngay jox waaw xanaa di di di di woowaat Sénégalais yi rek encore une fois comme que ba ñu jàppee date bi ba léegi ñu ngi ci communication bi yaakaar naa ne ñu ko war a yëg yëpp yëg ko. macha allah di leen wax ni ñu préparé ñoom soutenir seen doom euh, parce que ñun lépp lu ñu def rek c'est pour faire plaisir euh, ñi ñu bëgg ak sénégalais ndax loolu mooy suñu wareef ndax ay artistes lañu ay acteurs culturel lañu bëgg nag ñëpp ñëw jàppale seen doom parce que ñun ay xale lañu et nañu ñëpp ñëw jàppale euh, ñaanal ñu soutenir ñu. pour ñu mën a pour ñu gën a mën a am courage pour gën a mën a wane suñu talent wane suñu jom wane li ñu capable def ci musique di ci woowaa adduna bi yëpp parce que événement bi euh, nekkatul événement wu événement wu Tarba Mbaye kese événement ñëpp la parce que gis naa ñu ko gars yi dañ may woo partout dans le bi ma woowee fu nekk di ma ñaanal di ma jox seen soutien ma ci woon ñëpp xarit ak soppe mbokk ak am ni jàmm fépp doomu adama nekk rek ci àdduna man Tarba Mbaye maa ngi lay woo incha allah ce samedi 29 février au Grand Théâtre bu Ndiaye Coumba nga teel a ñëw jàkkaarloog géwél bi jàkkaarloog doomu ndaanaan bi jàkkaarloog Baye Fall